bismillah tey la tey de laas dëgg gi Karim Wade day tay ci kalaame bi nga xam ne nag kon Karim Wade da nga ma def nañ ko nag dogal bi nga xam ne CREI kon moom la jëloon tëj Karim Wade bi lée enquête yéen kaay ne moo taxit ñi koy layel day waaw ña ngay menacé parce que ay avocat Karim Wade day xam le nanu ne boo sàgganee nag wala boobu bu ko laajee waaw dem kon ca tribunal yi nga xam ne ñoom ñoo nekk bitim réew di juridiction internationale ya la tey jilee la cour suprême kon di wàccee na kon dogal ba Karim Wade day des ci kaso bi waaw wala dee tey lay leer ma ay avocat day waaw mer nañu ci côté bi côté ba ca des ña nga yumbe kon di jubilé maître Ciré Clédor Ly bokk ci ay avocat Karim Wade nee na Karim Wade day ak dogal bu cour suprême kon mën a jël Karim Wade moom am na ndam ah, ma am na ndam avocat mi ne juróom moo tax ma ne leen Karim Wade am na ndam bu njëkk Sénégal gi da koo football kon teg ko fële tribunal ba ca CEDEAO wax leen ne leen nekkoo leen ci dëgg ñaareel bi tax ma ne leen Karim Wade ngeeg ndam mooy CREI bi la la wax waaye haute cour de justice moo mën a atte Karim Wade ñetteel bi tax ba ma leen ne Karim am na ndam mooy Karim Wade kon setal nañ ko ci lu jëm ci wàllum guerre ngeen doon wax corruption waaw kon kenn mënu koo tere ba du doon candidat ci élection présidentielle yi di ñëw te loolee lañ ko bëggoon a nañu ko wañ loxo ngir mu respecté njàmbaarte gi nga xam ne kon moom la Karim Wade nekke ak xeex bi waaw juróomeel bi tax ba ma leen le Karim am maanaam kon daf ñuy dëggal ne politique a làqu ca tamit wàllum justice kon di yoon dañ koy ruux ne leen def leen lii maanaam instrumentalisation de la justice super tribune yéene kaay ne CREI bi day dee tey wala Karim Wade day daan waa tey enquête yéene kaay ne Karim Wade day renforcé na kon défense am ndaxte ñett ci ay avocat français Karim Wade kon dolli na leen ca termine yéene ko may ma ma may ma ma yeggali gré bi ci boppam day tëjoon la ilaha illallah Sud Quotidien juróom-benni atu yàlla yooyee mu tëjoon Karim Wade koy dëggal wala da koy day tey xam na Cour suprême gi lan lay saf Macky Sall day xam na université lan lay saf libération yéene kaay ne syndicat gi njaboote na ñuy kon ci wàllu yoon di ca liggéey subsiste waaw naxarlu nañu bu baax a baax sax xeer yi nga xam ne kon door nañ ko Macky Sall mi ca université recteur yu université googa di Ibrahima Thioub waaw daal dinay xam le ne bépp étudiant boo xam ne kon jàpp nañ ne kon taq nga ca lëf la danañu yëkkati ay daan lal ko sab ndodd la ilaha illa la le ne am na kenn kon ca jàppati de benn ndaw loo xam ne kon ci réew mi bu Idrissa Seck la bokk waaw police la teg na ko loxo la ilaha illa la libération yi ne kay ne xale ba Baara Ndiaye lay wuyoo moo jiite kon ndaw yi nga xam ne parti Idrissa Seck la ñu bokk nekk ca nee nañ ko nekk dañ koo sàcc enlèvement la moom xel mu ñaaw taxaw la am ca mbir ma parce que moom jàpp na ne gis nga Macky Sall mi le daa bëgg a kuttu bopp opposition ma nekk ca université ga Mbaye Diakhaté responsable parti démocratique sénégalais ca Diourbel ga ci tribune yéene kaay waaw nee na Macky Sall nekkul ne lii mooy doon ay xeeram yi mujj de déedéet yaa ngi ñëw mu waay Mbaye Diakhaté ne waaw parce que dëkk bi ci boppam kon moom moo feebar Sénégal a feebar ba noppi nag di wut kon am garab koo xam ni kon dana ko faj waa a ngi mardi tali waaw le populaire jigéen ñi bokkoon ci Benno Bokk Yaakaar day waaw ñeen fukk ak juróomi département yi nga xam ne nekk ci Sénégal lañ fa seene dem da ngay yi de waaw waaw Ndeye Mariam Badiane ak ñamu àndal nee nañu bëgg-bëgg bi daal objectif bi leen kese la mooy falaat président Macky premier tour ci élection yi super Ndeye Mariam Badiane ne président Macky Sall fépp ko tagg laa lay wax ne ci àdduna ndax yorinoom gu sell di dañu koy tudd exemple fépp ci àdduna bi le quotidien rek kay ne bomb ba ñëwoon mooy waaja tàkkoon ca Radisson Gay waaw nguur ga tey ma ngay entraîné de waajal boppam ngir bu musiba mbaa ba kumba ko naree dikk Abdoulaye ne la xew ca Radisson Gay nekkul ay tappale wala loo xam ne dañ koo créé de déedéet ministre de l'intérieur ne kaaraange yi moom ci hôtel yeeg yoo yee danañu ko yokk Abdoulaye Daouda Diallo yamu ca ci libération nee na nga xam ne nag moo téléphoné kon ba wax loolee fu mu mën a ne danañu ko loxati ji ñëw ministre de dëkk bi la leen ne matukaay yo war mi ngi fi te tontu laa defante bañ ca war a defi danañ ko ca def du am sax ma dem te ana semu fay mi jiite police lé ci sum info ak grand place nee na renseignement yi waaw seen liggéey rek lañ def amul benn faay boo xam ni kon am na ca déet ana semu fay yamu ca directrice générale police nationale ci sum info waaw nee man kay damay delloo njukkal nag samay élément di police yi ko yoree tamit correct na mooy gatanu na premier ministre bi lée ca Thiès waaw nañ ca dox koon ay tànk médiation kañ dénk wàllu médiation googu tribune yéene kaay nee na maître Alioune Badara Cissé la léegi ah, mooy médiateur de la république bu bees bi lée Le Soleil yéene kaay ci quotidien ne maître Alioune Badara Cissé day remplacé na kon kii di Serigne Diop Zoom info ne Sénégal day waaw boo sàgganee nag mu doon kon célèbre yoon plaque wàllum drogue fii ci Afrique soo jant marti Italie bu ñu pire pire ak ñent tonu yamba lañu japp kon fi ci Sénégal mu way maa la ko wax dem na ca lamb je tribune soox ne Tyson Yékini Balla Gaye 2 Bombardier seen roy day ndekete baaxul maar tiitaali laaj la ca samp de parce que wa CNG kat nee Manga de lañu reconnaître ne roi des arènes mu way maa la ko wax <laughs> alaaji fofu mom comme que ay mbirum dor ak dole kurpeñ ak mot di walu lamb duma ci débat mo do dama naan la alaaji tëjal